jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a nga ci rajo réew mi FM ñoo ngi leen di nuyu tey ci samedi ji euh, ci seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxaa du ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck du Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki tey ñu invité nag Dieydi Cissé mu nekk juriste de formation nekk conseiller en gestion des organisations xelam tamit màcc na lool jëm ci wàllum territorial Euh, xelam màcc na aussi jëm ci wàllum euh, xeltu ngir lu soxal ndaw ñi mën a am euh, liggéey maa ngi lay nuyu monsieur Cissé. waaw Cheikh Abdoul Khader Seck maa ngi lay jël la nuyoo bi di kontaan ci invitation bi fas yéene eggale ak yow waxtaan bi incha allah. Euh, monsieur Dieydi euh, euh, Cissé comme ni ma ko waxee sànq mos nañ fi def benn émission boo xamante ni macha allah boo bu bu am solo la léegi nag comme actualité la ñu wax ci actualité bi doog wax ci wàllum territorial ak xëyum ndaw ñi ak yu si aju acti li nga gisee tey campagne électorale bi ci élection législative bi ak xëccoo bi programme yi ngay faral di dégg noo ko gisee. loolu dafa jara euh, dafa laajte ñu taxaw tuuti euh, gëstu euh, li waral élection yi dañoo dañuy dem si li nga xamante ne mooy élection législative ay député la ñuy fal député yi ñëpp xam nañu ñoom ñooy exercer pouvoir législatif député mënul leen lu dul voter loi proposer loi contrôler action gouvernementale voter loi proposé loi contrôler action gouvernementale député loo mooy rôlam mënul defar tali mënul indi aéroport mënul wàññi njëg dund mënu ko yokk loolu ce sont des lois si loi yi lay jaar léegi campagne mais mën a yooyu quand mais bien sûr fa laa ñëw <laughs> je suis tout fait d' accord mais c' est à dire que doo li nga xamante ne moo koy déterminer loolu action président la exécutif la actuellement ñoom ñu ngi si législative donc ñoom seen pouvoir loolu la mais par exemple président bi mu yor pouvoir exécutif moom mooy déterminer politique réew mi. après dinañ ci ñëw xam naa si biir waxtaan bi dinañ ci ñëw. c'est que dama bëggoon indi leeral boobu rek pour mu bañ a am propagande ni ñuy jaxasee foog ni député bi rôle mooy lan balaa ñu ci ciy génn. li tey dañuy campagne mais par pa campagne boobu ñoom ñëpp nag mooy pouvoir mooy opposition dañoo defoon benn programme ci seen programme bi moom la ñuy présenter Sénégalais yi pour les communales boo leen seet boo leen fàttali ko. moo taxit ñu fal leen ñu def leen confiance sur la base d'un programme bi nga xamante ne ñoom loolu ñuy présenté défendre ko population bi ñu ci bëri votel ñii beneen beneen parti bi votel ñee mais ñoo ñuy faloon si communal yi est-ce que tey ñoom gestion commune bi moo leen intéressé wala euh, mbébétu population moo leen intéressé ñoom ñoo ñëwaat tey encore taxawaat les mêmes personnes taxawaat ci kanam sénégalais yi ne leen dañoo soxla ay député pour ñu leen taxawal ci assemblée bi mais est-ce que député yooyu ñuy nar a ban rôle la ñuy joué ci assemblée bi ñoom lan la ñuy proposé ban campagne la ñuy proposé te campagne bi ñuy wax noonu on dirait que nous sommes dans une campagne présidentielle ça n'a rien à voir ak rôle député bi c'est en quelque sorte leeral yooyu dafa am amalgame nga jàpp dafa am amalgame dafa am amalgame parce que campagne législative mais c'est pour euh, ñu vote ñi élire ay député la te député bi rôle am mooy voter loi proposer loi voilà contrôler action gouvernementale léegi comme ni nga ko waxee sànq si loi yooyu ñuy proposer proposer laa te loi bi bu député proposer il faudrait encore que ñoom bu nekkee opposition la comme ni nga ko waxee moom cohabitation c'est loi mën a jàll wala mu am majorité majorité relative wala mu majorité absolue pour président jàll donc yooyu après presque biir waxtaan bi nañ ci dugg gën ko détaillé pour xool yan impact lay am sa à dafa mel ni baromètre la quoi dañuy sonder ku nekk day natt oui mais lu tax nga ne euh, yow da ngaa sentir ne campagne présidentielle nga gis gars yi di ko def. oui parce que sincèrement mu tax ma wax la loolu parce que euh, boo xoolee ñi nekk ci kanam au camp du pouvoir ak au camp de l'opposition euh, waxuñu li jëm ci doxalin assemblée bi dans le sens où bu ñoom bu ñu amee. Euh, majorité majorité absolue wala ñi bo wala cohabitation boo amee ban taxawaay li député bi di am te sax député boobu. dans les deux camps mais Sénégal bu mu nekk Sénégal bi léegi gis nañu député yi taxawee on les a taxés de tous les noms dañuy nelaw enregistrement automatique c'est pour faire passer les lois ban impact le député yi mun a am tey si doxalinu Sénégal quel quel est l'enjeu tey assemblée nationale pouvoir législatif pouvoir législatif sax dañ koy wax ni rek waaye amul. mais est-ce que tey yow yow li nga wax nii. crainte yi nga am nii. ak li nga soulevé ne euh, yow sénégalais yu bari gis nañ ne député yi seen njëriñ bëriwul. est-ce loolu. Euh, pouvoir bi majorité bi muy am assemblée nationale est-ce que du loolu ma ko waral est-ce que jàppoo ne tey bu co cohabitation amoon li ngay wax ni du changé. waxal naa ne dinañ ci ñëw parce que il fallait que ñu ñëw si <laughs> effectivement xam nga président moom le président de la république moom dafa am pouvoir exécutif moom day naan politique bii laa bëgg wàññi dund bi yokk dund bi Sénégal yi am xëy euh, am fu am fu ñuy dëkk ñuy faju ñuy jàng loolu il détermine cette politique là bu ko déterminer léegi day am premier ministre bu koy coordonner ak bu koy conduire. léegi loolu bu ko amee xam nga exécutif kese loolu day nekk dictature donc ñu ne ñoom am nañu seen idée en tant que exécutif léegi dañuy dem assemblée nationale proposer ay loi pour mu doxal parce que bul fàtte ni constitution c'est la loi loi constitutionnelle sax la ñuy wax. constitution bi foofu lañ koy voté donc c'est c'est une loi moo lépp ay charte charte réew mi la lépp si kaw lay sukkandiku donc loi bu mënta génn il faut que mu méngoo ak constitution bi. député yooyu léegi ñu nar a fal nekk si assemblée bi bu nekk le président de la wax ni. man lay concerné parce que analyse la un président de la république nga xamante ne am na euh, jot na kii euh, pouvoir bon il a été élu dafa soxla assemblée bi nga xamante ne du ko sonal c'est ça la vérité aussi dafa soxla assemblée bi nga xamante ne moom lu mu xalaat ni moo baax pour pour dox pour doxal leen euh, politique am bi assemblée nationale bi du ko nangul moo waral si choix bi sax c'est un problème moo tax i choisi moom li koy arrangé ak ñi nga xamante ne ils mais gis nañ day euh, faussé lépp waaw. mais monsieur gis nañ ay réew yoo xam ne am na cohabitation te pourtant réew ma ma ngay dox tranquillement maa ngi fay ñëw xam nga loolu laa bëgg moo tax mën nañu fay ñëw moo tax dama bëgg d'abord éliminer loolu pour ñu comprendre ah, majorité absolue bi lu tax président de la république mu war a soxla majorité absolue c'est pour que mu mën a déterminer politique am bi premier ministre bi conduire ko coordonner ko te bu loi yi mu soxla moom xalaat ni dama war a wàññi njogu dund bi hmm. loi bi laa xalaatee tëral mu demee assemblée mu jàll comme lettre à la poste hmm. mu waral muy xëccoo majorité absolue hmm. nga ni sax instant yi amul majorité absolue majorité relative la am coalition. Mhm. parce que moom kese boo demee doo am majorité absolue. Mhm. boo nekkee 100 députés moo nekk ci assemblée nationale bi il faut mu am 51 députés. Mhm. pour mu am majorité absolue mais moom xam na ni moom amul majorité absolue boobu. c' pour ça que muy boole ak yeneen nit def coalition. pour am majorité relative maanaam moom bu amee 40 ñii am 10 ñii am 5 ñu am presque lu ëpp cinquante mais majorité relative la te ñoom dañuy ànd ak ñoom dañuy coaliser dañuy waxtaan pour mun a jàllale loi yi. mooy négociation yi xoolal ki nekk euh, au conseil collectivité territoriale euh, assemblée nationale ak euh, président de la république donc ku nekk il faut di càpp càpp càpp comme un partage du gâteau c'est ça la majorité relative léegi la cohabitation mooy que ni benn benn parti bu nekk si opposition en plus de cinquante pour cent plus un maanaam je donne l'exemple quoi Yewwi Askan Wi tey boo amoon six cent députés boo amoon cinquante et un députés cohabitation mooy am mmh. te loolu constitution wax na ci ba pare cohabitation boo amee il faut que président tànn premier ministre ci biir opposition te cohabitation boobu bu amee nga ne mu ngi ci euh, yenn réew gis nañ ni lu muy doxee c'est vrai mais yenn réew ni ñuy doxee ak Sénégal ni muy doxee bokkul mais ñun musuguñu musuguñu dund cohabitation waxuñu cohabitation baax na waxuñu cohabitation baaxul c'est même hasardeux ñu ciy wax parce que li ñu xamagul la mais mën nañu njort ni dina tax ba yenn doxalini euh, réew bi euh, président bugg a def boo arrangé wul population bi ab député taxaw ñu ne ñoo bañ mais est loolu déjà ñoo ngi naan dafa sooxe dafa tële mënul dem imaginer en plus de ça biir assemblée bi amul euh, majorité kon liggéey bi day gën a yàpp kon Sénégal yëpp nar a sonn encore dañuy gën a sonn quoi. waaw mais mais opposition bi ñoom nee nañu. waaw amuñu bëgguñu cohabitation uniquement pour bloquer doxalinu réew mi dañu bëgg cohabitation. pour mbir yi jaar yoon. man sax nga baal ma balaa ma ciy egg waaw loolu c'est une bonne chose dégg naa ni ñu ne cohabitation boo amee président day dissoudre assemblée assemblée kenn du kenn du ko dissoudre noonu vraiment euh, na ma bal euh, mais assemblée bu bees bu amee il faut deux ans de législature loolu la constitution bi wax les Sénégalais daal seen xel cohabitation bu amee wala bu am président mënul dissoudre assemblée il faut mu toog deux ans après dooru mënul dissoudre assemblée te loolu vraiment day nekk nga xamante ne c'est c'est valable léegi cohabitation bi li ñi ni ñu foog ni effectivement que day am pour ñu bloquer président mais bloquer président dans quel sens nee naa la <laughs> assemblée nationale voter loi la fi nekkee proposer loi ak contrôler action gouvernementale te cohabitation boo amoon sax président bu tànnee prés bu tànnee premier ministre article je pense c'est 53 mooy mooy président fu muy tànnee premier ministre premier ministre bu ñëwee moom du déterminer politique bi il n'a rien à voir dans ça président constitution mooy déterminer politique bi de la nation bu ko déterminer ba pare moo ko nekk ci premier ministre cohabitation bi mën na ko sama politique nga nii demal assemblée nga défendre ko yaa koy conduire mënu ci dindi virgule mais tey par exemple tey euh, maanaam gouvernement bi. Ah. président léeg dina bëgg euh, ay loi yu jaar. Ah. yu jàll. Ah. bu dee tey opposition am nañ ko habitation aussi majorité. ñoom mën nañoo wax ne am na loi bu fi nekk par exemple tey parrainage dañ koy fi euh, dindi ñoom tamit il faut ñu teg seen i mbir. bien sûr loolu mooy jëriñ cohabitation bi parce que comme ni ma la ko waxee par rapport aux lois ils peuvent changer beaucoup de choses léegi ñoom ñoo war a xool yan loi c'est que c'était ça la campagne c'est ça l'objectif de la ñoom est-ce que ñoom xool nañu sax loi yi fi ne est sénégal yi xam nañu loi yi fi ne mais juriste sax des fois du ñu xam loi yi fi ne. waaw mais mais am na ñu wax ne loi yi boo xam ne loi buy wàññi dund gi loi boo xam ne dafay xoolaat licence de pêche ni ñu koy joxee. Mhm. licence euh, affaire homosexualité loolu lépp dégg nañ ko fi. voilà espérons nag que léegi loolu bu amee ñoom ñu mun ko def ñu bañ a def ni li ñu defoon ci communal yi. parce que li ñuy gis ci communal yi ñoom ñëpp li leen gën a intéressé dootul nekk doxalinu commune bi. mais seen intérêt politique li ñu dugal ñan ñooy seen campagne électorale yi tey mais ñoom ñëpp tous membres issus de la campagne kenn liggéeyul ñaan ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi mais ñu war a fi ndaw ñi sax liggéeyuñu ñoo ngi ci campagne bi matin midi soir bàyyi seen ministère bàyyi seen direction bàyyi seen liggéey après ñi ne ndaw ñi liggéeyuñu comment ndaw ñi lan la ñuy liggéeyee politique bi li ñuy jiital mooy ni ma lay wax sànq donc programme bi ñuy proposé programme bi day baax day neex day rafet day am njëriñu askan wi mais est-ce que après bu ñu xasee ba toog dinañu tal loolu loolu ñu dul tal dañuy talaat encore ay contraintes politiques bu ñu paree ci législative yi ñu talaat présidentielles yi encore ba kañ Cheikh Abdou Khadre ba kañ. d' accord jërëjëf euh, monsieur Dieydi Cissé léegi même euh, benn Bokk Yaakaar ci seen campagne bi ñoom dañ doon liste rek bilan président Macky Sall est ce que seen campagne dafa waroon a nekk liste bilan président Macky Sall wala liste ñoom 10 ans yi ñu def assemblée nationale wala 12 ans ñu fa def. wax dëgg waxuma la woon sax dafa am diggante. <laughs> campagne bi dafa mel ni campagne présidentielle li ñu nekk alors que on veut choisir des députés qui doivent représenter le peuple waa léegi xëy na ñoom loolu dañ ko def pour wax ni président bilan baax na donc assemblée ñi fa nekk war ñu baax si sama gis-gis quoi mais n'a rien à voir man j'aurais ñoom c'est loolu yëpp mooy ci si choix bi la quoi ñuy yóbbu ci assemblée nationale quel rapport ça assemblée nationale liggéey assemblée nationale ak liggéeyu président ak liggéeyu justice ça n'a rien à donc le pouvoir législatif ñoom dañoo waroon wax ni depuis façon député bii la ñu bëgg a indi parce que ñun suñu loi yi lii la loi yi li ñu bëgg a def c'était sur ça qu'il fallait communiquer mais président def na lii opposition bi def nañ lii d'accord na d'accord uma day mel ne campagne présidentielle rek mu ne ma doon wax léegi tey assemblée nationale euh, ndax jàpp nga ne kañ lañ dem ba ba mujj convaincre askan bi ndax léeg-léeg euh, assemblée bu ñëw rek Euh, maanaam mën nañoo wax ne dafay gën a naax saay dafay gën a nësax député yi dem ba ñu baree baree bari parce que dañu jàpp député yi amatuñu amatuñu benn njëriñ mais bii di ñëw nii ndax xam nga si yaakaar. en tout cas man daal li ma xam si euh, assemblée nationale bi si yenn liste yi ñooñu bu ñuy jàllee macha allah parce que ay borom xam-xam lañ ay am na ay technocrate am na ay politiciens am na ay nit ñi jub am na ñi nga xamante ne tax. ñoom dañuy yóbbaale ma si yóbbaale ma bi la ñuy bokk quoi parce que am nañu mbooloo mais loolu du njëriñu assemblée nationale moo tax ma ne la si choix bi la si li ñuy tànnee député yi war a dem si assemblée. waaw mais xam nga même opposition yi su amee député. Mm-hmm. Euh, te amul majorité assemblée nationale presque njëriñ li du bëri. ndax opposition bi même bu dee ne ñu ne ay technocrate nekk ay boroomu xam-xam. proposé kese la ñu man mais bu dee ñoom amuñu fa majorité président bi ñoom majorité bi mooy xool ñoom proposition bu la neexee jël ko dugal ko sa poubelle ba bu la neexee ñu jël ko sànni. moo waral ñuy ku nekk di utu kii di ut majorité absolue pour politique kii di ut majorité relative. kii di bëgg cohabitation pour moom tamit bu cohabitation am bi mu mun a jàllale yi mu gis ni war na njëriñ askan wi. moo tax ñuy def élection yi de. ku nekk di xëccu. de son côté léegi nag ñañ ñooy voté sénégalais ñooy voté mais bu leen fàtte nii c'est pas seulement pour voter ay loi voter loi yi d'accord baax na mais voter loi yi nga xamante ne dina amal njëriñ population bi. c'est que li ñu gis député bu xasee ba voté bu xasee ba vote jàll saa yee assemblée nationale da nga fay dem suba ba ngoon doo dugg ba fa xamul kenn du la dugal man xam naa foofu man bokk naa see commission dama doon bokk seen commission technique dañuy liggéey nag plénière yi dañuy liggéey nag moo tax ñuy nelaw si plénière yi parce que commission technique li ñu fay daj député yi dañuy liggéey de mais li fay daj ñoo ko xam moo tax des fois bu ñu ñëwee plénière sax loolu sax ñuy voté parce que la commission technique nit ñi ay jours te boo xoolee seen état physique sax ay mag lañ des fois day dañuy sonn. mais est-ce boobu baax na ni ñu koy tegaloon waaw mais loolu parce que xëy na programme la rek si calendrier état bi. xëy na kanam bi ñu ko xëccoo tamit du leen arrangé parce que ils ont des délais vote da nga war a voter budget bi avant décembre te du loolu rek ni ñu am ni ñu war a def ministère yi fa war a jàll dañuy bëri tout ça mais l' essentiel je ni quelque chose ak lu muntu doon député yi euh, vraiment ñi yàlla tànn mu ngi demee assemblée nationale bi ni ñuy xalaat euh, sénégalais yi ñii bañ wax ni président moom ma fi teg député président la ñii bañ wax ni député opposition la ni ñuy jàpp seen bopp ni député peuple sénégalais bii lañ dañu war a représenter peuple sénégalais yi moo tax sénégalais yi voté leen jox nañ seen baat sénégalais xam ne nag liste yooyu ñuy tànn nañuy xaar ñooñu représenté leen par rapport ak ñoom ñoom li ñu soxla mais pas député ñu jox la sa carburant jox la sa oto ngay xëccoo ay euh, dugg ci groupe parlementaire ak euh, voyager no c'est pas ça il faut que ñu changer loolu nag ni ngay wax sànq mooy démo maturité démocratique bi maanaam yenn dëkk yi dañoo dépassé loolu mais comme ni la ko waxee ñooñu duñu Sénégal Sénégal ñu ñooñu mais quand même ay nit lañ. te nit war nga xam lu jëriñ sa réew même boo faree ak président loi bi ñëw mais déjà nga xam sax li loi bi wax moo war a ñu soxla ñu war a soxla assistant parlementaire député nga foog ne amuñu moyen pour uti assistant parlementaire marché yooyu yu ñu joxe yëpp mënuñu si sax benn marché consultance jox ko ay jeunes ay ñaata étudiants juristes ñooy tëdd université am na sax ñuy jaay ay ay ay ay casque <laughs> tey téléphone yàlla ma yàlla baal ay juristes bac plus mois sax député bi nga xamante ne joolaa la déggul français kii saraxul la déggul wolof kii euh, wolof la déggul français mais ñi jël au moins deux jours assistants yi di leen mais fu mu nekk mos nañ ci waxtaan ay assistants yi nga xamante ñoom ñooy dooleel député yi pour député yi itam xam loi bi lu mu lan la ay député di ngi toog sax après ni ngi door a xalaat ni loi bi lu ma ko fa lan la ñoom dañu naan di ngi toog rek yéen diw bu yëkkati loo xam ne yëkkati solo ko parce que la aussi donc il faudrait que ñoom ñëpp député yi am benn niveau ñu bokkandoo dem mais des députés extraordinaires des députés extrêmement nuls c'est pas ça. d'accord léegi euh, Diéry Cissé euh, yow est-ce que jàpp nga ne député yi euh, ñoo ngi représenté aussi. askan bi ci gox yi nga xam ne tey fa la ñu nekk ndax da ngay gis député yoo xam ne ci département bi nga xam ne tey peut-être falo falo ci list départemental ay jafe-jafe dafay am mais rarement ngay faral di gis député yi jël ko di ko exposé ci assemblée nationale. man daal li ma gis ni ñu koy faral di def sincèrement te faruma nag mais député yi nekk Fouta de député yi nga xamante ne zone Fouta bi ñu jógee ñoom dañuy xeex rayante pour li mën a jógee fii au niveau de au niveau Dakar yooyu egg egg ba ci ñoom c'est vrai qu'ils ont si des relations mais député yu bëri li ñuy gis ni ñoom bu ñu xasee ba toog rek toog nañ et dañuy changer numéro doo leen jot mais et puis lan mooy amuñ sax liggéey bu ñuy def temps en temps ñuy dem assemblée population bi leen fal doo delloo ba population yi waxtaan ak ñoom xool li ñuy soxla wax ma ñaata proposition de loi moo mos a am si assemblée nationale bi si législature bi dañuy voté rek c'est-à-dire que si exécutif bi lay jógee ñëw ñoom ñu voté alors que c'était eux qui étaient censés faire des propositions pour changer et puis ñaata proposition de loi moo am sax donc de am na ay députés si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngi xeex di defar seen gox di dafa yóbbu ay hôpitaux dafa indi ay ay ay ay ay usines yooyu ñoo ngi koy def quoi vraiment mais mais dañoo gis ne ba léegi pouvoir euh, exécutif bi dafay euh, teg loxo euh, ci pouvoir législature bi kañ ngay jàpp ne danañu am assemblée nationale boo xam ne bu moom boppam lay doon. xam nga loolu question bu question bu question bu technique la parce que déjà Sénégal mënuñu wax ban régime la ñuy am am na ñuy naan régime présidentiel présidentialiste am na ñuy naan régime parlementaire am na ñuy naan régime hybride maanaam. Euh, pouvoir exécutif législatif ak judiciaire bi nga ko séparé président ñu ne yow yamal si exécutif bi rek assemblée nationale yamal si législatif bi rek judiciaire yamal si judiciaire bi rek maanaam conseil constitutionnel ak cour suprême ak euh, cour des comptes ñoom ñu ne yéen loolu rek ngeen di gérer boobu mooy pouvoir présidence et euh, régime présidentiel cela veut dire que président bi mënu sax dissoudre assemblée nationale parce que ku nekk ak pouvoir la loolu amul Sénégal États-Unis rek am régime présidentiel États-Unis moo ko créé États-Unis rek lay marché Amérique mënul marché wul feneen si adduna bi ñu ko jëm yëpp ils ont eu des problèmes léegi ñu ne bon comme que régime boobu ñu mënuñu ko appliquer dañu ñu jëlaat régime parlementaire boole ko ak régime présidentiel bi moo tax ñu am premier ministre yooyu ñu ne assemblée nationale bi day collaborer ak exécutif bi mooy benn collaboration mais léegi on a une partie de régime présidentiel une partie de régime parlementaire bu ñuy boolee moo tax ñu naan régime hybride maanaam yaa ngi ci mun nga nooy ci ndox bi mun nga mun nga nooy ci jaww ji ah voilà c'est ça quoi ñaar yëpp la ñu mën léegi si choix wu député yi ay liste la président duñ ko fekkee kenn du ko fekkee mais ñëpp xam nañu mais buy mooy mooy wax diw yaay dem diw topp ci diw topp ci diw topp ci mu dem taxawee fee liste boobu ñu campagne ko kan moo tànn président moo tànn moo taxit il la mainmise de l'exécutif sur le législatif loxoy exécutif comme ni nga ko waxee mu nga ci kaw législatif bi léegi indépendance boobu dama la ne c'est par rapport aux hommes aux femmes ñiy dem ci assemblée bi ñoom ñoo war a am ñoom dañoo war a nekk dañoo war a am originalité yéen ko gars président c'est vrai merci def nga ma confiance bu déglu mu ci liste bi dem naa assemblée yaa ngi ci liggéey da nga ne ma def sama liggéey sama liggéey bi proposer loi la contrôler sa action gouvernementale bi voter ay mais damay xool li nga xamante ne aussi population bi lay représenter ma ñoom c'est c'est les personnes. d'accord jërëjëf euh, monsieur si Cissé xelam màcc jëm ci wàllum euh, wàllum yoon wàllum décentralisation euh, léegi dañu gis ne élection bu accès campagne yooyu même avant élection yi wàllum ŋàññante di kenn ku nekk di boddi sa morom ci lu jëm ci wàllum xeet te Sénégal bu ñu moytuwulee. loolu débat boobu dafay gën di euh, dafay gën di wéy maanaam président bi fii la bokk oppo bi fii la bokk euh, kii mooy gagné gox bi ñi ay murit lañ ay tijaan lañ ñi ay joolaa lañ ñi nangam Fuuta di ñi na da ko bàndum kàddu yooyu ngay faral loolu noonu euh, fan la ñu mën a yóbbu. loolu de du lu lu ñu war a encourager parce que gis nga loolu dafa dépassé sax Sénégal loolu c'est l'Afrique loolu tubaab moo ñu inculqué loolu ñuy bañante suñu biir. pour ñu bañ a booloo moo tax Afrique sax du dem donc réew yëpp c'est comme ça Rwanda gis nga ko Tutsi Hutu boo demee Sierra woon dañuy reyante partout Sénégal voilà kon nag c'est comme ça donc c'est loolu c'est depuis la colonisation quoi wala tubaab bi tey doo wax ni kii bu kii géwal la kii kii je sais pas ma buur la kii euh, amul foofu c'est de Français c'est des Anglais c'est des Américains fii li ñuy toog ba léegi am considération yooyu division ethnique yooyu voilà loolu loolu du lu ñu war a encourager déjà mais Sénégalais dañoo war a xam ni loolu manipulation la manipulation bi nga xamante ne dañ ko dugal ci jeu politique pour bon murid yi boo bëggee murid yi farat yow nga def nga am lu nga wax ci murid yi nga ne murid attention kii farul ak yéen na tijaani jóge fële mais c'est cette division yooyu à quoi ça sert c'est même pas l'enjeu problème bi mooy vous avez des programme nga am ay xalaat teg leen ko da nga bëgg a nekk président waxal li nga bëgg a yow da nga bëgg a yóbbu seen nit assemblée nationale acca c'est tout mais loolu vraiment ça n'a pas sa place sur le jeu politique quoi loolu moom vraiment c'est pas encouragé am fu ñuy jëmalee yar nañu fay la musul d'accord léegi opposition bi taxawaayu opposition bi seen discours yi seen déclaration yi lan moo ci sa xalaat ndax ñenn ñi jàpp nañ ne ay déclaration la yoo xamante ni tey yu yu euh, maanaam ay ñu radical lañ ñoo xam ne seen kàddu dafay faral di yee fitna am na ñoo xam ne noonu lañ ko noonu lañ ko jàppee bu dee ci euh, côté pouvoir bi ñu jàpp ne euh, président Macky la ñu mu ñoom dañuy jaay doole ku ñu bëgg mu dem ci élection mooy dem ak yelleefu askan wi dañu ko daal di salfaañe kenn ku nekk di tuumaal sa moroom yow la sur sa commentaire. Cheikh Abdou Khadir des fois yow suñu paree <laughs> émission bi su ma ko dégluwaat. damay naan question yi may posé yàlla yàlla mu may jàppale rek ma ciy tontu <laughs> c'est tellement pertinent question yi ngay posé c'est très très très pertinent léegi euh, ce que je veux dire en tout cas waxuma ne am naa tontu sa question bi mais naa la indee ay éléments de réponse xëy na nga gis si si biir élément de réponse yooyu li ma bëgg a wax gis nga euh, président lu muy doxalee ak chef de l'opposition lu muy doxalee bokkul président li muy doxalee waxuma ni noonu la war a doxalee mais c'est pour moom ki nekk chef de l'opposition waxuma li muy doxalee noonu la war a doxalee mais c'est pour moom ma njëkkee ci moom chef de l'opposition dafa war a incarner leadership dafa war a nekk leader un leader bi nga xamante ni nit ñi dañ koy topp pas dañ koy gëm de dañ koy topp li muy wax mën na leen bañ a mais dañ koy topp parce que c'est leader fu mu leen di jëmee li ñu bëgg a xam dañ koy topp parce que yaakaar nañu fu mu leen jëmee baax na ci ñoom c'est et surtout le leadership territorial moo waral dañuy naan sëriñ la ay taal ay taalib la yor day joxe ndigal rek ñu topp ko noonu lañ koy waxee du ñu ay militant du ñu ay candidat du ñu ay électeurs c'est des ce sont des suiveurs. mooy ñu topp Sonko. mooy noonu parce que bëgguma wax tur bii. moom léegi non non ñu voilà ñu topp Sonko. et c'est et c'est normal il incarne cela. mais yàlla xam na ni xaw ma dara mais bis bu ko yàlla mayee réew mi par exemple lu muy doxalee ni du ko doxalee. il va la conduite d'un président et là foofu dafa dina obligé dugg ci li ñuy wax régulation croisée régulation croisée mooy lan da nga am say ministre da nga am say say say say député da nga am say maire boo amee politique dangay ngay jokkoo ak ñoom ñëpp pour xool naka la ñuy croisante information bi pour li nga bëgg mun ko am mais dootul ñu taxaw discours boobu mu koy def imagine rek mm-hmm. Sonko mi ngay wax nii attitude bi mu am mais c' est la même attitude que le président Macky Sall amoon ba mu nekkoon opposition. c' est la attitude. même Wade même mais bu ñu ñëwee toog ci nguur gi sa a changé ñu ne dafa soppeeku waaye non c' est pas ça. parce que boo duggee réalité ça waay <laughs> président président dafa am réalité. mais réalité bu réalité bu bu bu extraordinaire parce que dafa am yow sa réew souveraineté. waaw nga nekk ci benn communauté. nga am ngeen bokk ak nit ñi ci adduna bi ay relation nga am ay ay ay ay ay rapport diplomatique du xaaj du jeex léeg-léeg sax doo tal yow nekk si biir réew mi yaa ngi xool ndax nga war a fayee fonctionnaire yi parce que ñu ne xaalis amul sécurité réew mi réew mi donc c' est tellement de paramètres waaw santé bi mais leadership bi c' est bien parce que il faut mu am opposition il faut que mu exister te sénégalais yi sénégalais yi mooy par exemple la lu mu waxoon bu muy dem mu ne am na li ma def si ñoom loolu kenn dootu ko dindi ñëpp a sénégalais yi ñëpp a yeewu donc moo tax Sénégal naqaree diriger parce que looy wax il faut que mu leer si bëtu nit ñi si xelu nit ñi balaa ñu lay sànni seen carte. mais mais mais Sonko lii muy wax nii xale yi topp ko fu mu dem ci Sénégal. waaw tey bu demoon ba nekk euh, président est-ce que jàppoo ne man naa ëppi jafe-jafe sax Macky Sall. en tout cas li ma mën a li ma xam daal mooy liberté bu mu am mu koy doxalee nii dina wàññeeku li mu wax ni da koy def du ko mun du mun def lépp. mais yéene bi mu ngi fi loolu mooy yéene bi quoi. am na yéene xam nga tey lim dig ndaw ñi. bëri na <laughs> waaye lim ŋàññi état central dafa bëri est-ce que lim ŋàññi état central tey bu toogoon. Euh, dina ci indi saafara chaque jour day wax ne justice bi dañoo war moom seen bopp nangam fii séparation des pouvoirs li mu digal loolu lépp eh, ak tubaab yi entreprise étrangère yi jóge fii wala nangam yu mel noonu. man de lenn laa la mën a wax dama la ne tant que exercer au pouvoir bi xamoo réalité doo xam réalité te ñiy jaar fi jaar yëpp ñu ëpp Sonko bopp fuuf gën ko xam adduna mag ko ñoom ils ont tous eu des et partout dans le monde. léegi lu tax ndaw ñu topp ko. leader la leader mooy ki nga xamante ne dafa taxaw mu ne li fi nekk comme pouvoir bi nga pouvoir bi nga wax il n'est pas d'accord avec pouvoir bi ma jox la benn exemple bu ndaw ñaata sénégalais ñoo mer exemple bu exemple bu ndaw keroog rek au niveau de la DAF dama dem pour te quarante 9h ba 14h ba pa ñu ne ma ñëwul suba. maire boobu man su ma ko téye woon kan laa koy xob. président bi. lan la def. deful dara directement. kan ñu fa ñu fa teg. waaw imagine groupe bu fa nekkoon yëpp. nga dem hôpital bëgg a faju nga am sa malade ñi lay dawloo boo mënee lan ngay def da nga voté ñooñu non non da nga naan président la donc c'est ça c'est lui aussi qui est responsable de sa politique. par rapport ak nit ñi mu fay teg ñoo deful seen liggéey tey loolu Sénégal yëpp koy dund et c'est facile de dire man loolu lay wax chaque fois nga baal ma c'est facile de dire lii baaxul lii baaxul lii baaxul c'est facile de le mais après loolu pour man boo ci paree rek indi solution automatiquement bind nañu livre solution d'accord mais est-ce que c'est des solutions qui sont est-ce que c'est déconnecté ak réalité bi xam nga am nga problème bi oui gis nga lii doxul parce que lii parce que là mais nga ci toppare di ci wax man damay kontaan fu ma toog xiim sama ataay rek waaye ñu mu wax dëgg la de. dëkk bi doxul waaw. léegi léegi ndaw ñu topp opposition bi surtout Yewwi hmm. dañu amul confiance ci président bi da leen a xëy wala lu lu tax loolu. Euh, raison yi bëri na raison yi mooy si yi ma la wax nii raison yi am mooy euh, anomalie bi ak dysfonctionnement bi maanaam lu doxul ci réew mi. li leen métti ci réew mi loolu yëpp boo ko jëlee dajale ko boo ko waxee ay ndaw dañuy fipp dañuy mer déjà benn. Ah, nga ne leen waaw eh, c'est c'est vrai yëpp du neex kenn. Hmm. kii am na ay milliards te yow. sa bi vraiment. donc yooyu yëpp boo ko boolee déjà am na day nekk lu nga xamante ne daf leen di métti te dafa neex a récupérer ku mer dafa neex a récupérer boo ko ne kaay mën naa la fajar sa mer waaye ni ngi dem fii ba pare daf lay topp parce que kële kële moo ko merloo ba pare. ah c'est comme ça donc il faut ñu topp ils suivent parce que ki leen ki leen jiital daf leen wan yoon fay na fay la ñuy jëm pour ma saafara seen mer léegi yàlla yàlla rek a xam ndax ki leen mer loo dana xam nan lay dindi mer bi wala ki leen bëggoo dindi mer bi ndax dina ko mën a dindi. d'accord waaw jërëjëf euh, monsieur Dieydi Cissé euh, yow sa xel maa ci jëm ci wàllum euh, wàllum yoon wàllum euh, décentralisation ak euh, lu soxal wàllum euh, lépp loo xam ne jëm na ci wàllum gestion des organisations nga nekk ci conseil léegi pouvoir bi dañuy wax ne président bu Sénégal président bi même bu dul Macky Sall sax Abdoulaye Wade ak ñooñu li ñuy yor ci seen loxo dafay bëri ba nga xam ne lu ñu bëgg a def dañ koy def maanaam jaay doole salfaañi àq ak yelleef doomu aadama jël nit ñii di dugal ci kaso bi pouvoir bi loolu ñu koy tuumaal ndax jàpp nga ne lu am la. mais loolu moo am <laughs> loolu kay c'est même pas il faut pas chercher loin président africain yi la sax lay wax doole bu ñu am président tubaab bi amuñu ko président France France moo doole Sénégal mais président France dooleem ak président Sénégal dooleem ci présidence bi maanaam ci doxal présidence bi président sénégalais moo ëpp doole fuuf président France wala président Amérique sax bokkuñu sax les présidents africains ils ont le plein pouvoir. lan la ñuy wax. le pouvoir rend foo et le pouvoir absolu rend absolument fou mu ñu ne ko nañ ko nañ ko séparé mais nos présidents africains la mooy xew ils ont tous les pouvoirs président mu neex leen mu naqari leen fii mu yor pouvoir exécutif mu yor pouvoir législatif mu yor pouvoir judiciaire naka la yoree ñetti yi mun nañ ko expliquer pouvoir exécutif bi dafa dem fort ñu voté ko mu nekk président pouvoir législatif bi dafa tànn ay député dugg leen ci liste mu ne la eh yow fii yow fee yow toppal ci kii toppal d'accord nga dugal d'accord nga génnal mu ñu dem assemblée. moo ne fa yóbbu bu waxee ak bu waxee ak bu waxul lu mu fa wax loolu la donc il a le pouvoir législatif pouvoir judiciaire premier ministre euh, ministre de la fu mu ne biir biir gouvernement bi. mu ngi ci biir mu ngi ci biir pouvoir exécutif bi. Mm-hmm. après daal moo ay conseil constitutionnel ak cour suprême ak ay cour tribunaux. ñuy dépendre si. mooy seen patron. alors léegi mais mais mais magistrat dañoo yàgg wax ne dañoo bëgg président bi génn loxoom ci magistrature bi mais ba léegi ñun suñu président yi dañuy lànk. mais indépendance de la justice loolu euh, euh, kii la genre rêve la gént la amul fenn États-Unis rek mu a dox. nee naa la ah séparation de pouvoir nee la régime présidentiel mais France am na fa peut-être. waaw mais c'est-à-dire que bokkul. il y a le régime parlementaire nekk ci diggante bi c'est-à-dire que imaginel ñu am. benn indépendance de la justice fi magistrat bi di yilif xaarul kenn ci kenn mais kon saa waay ñi nekk ci dëkk kaso yi fu ñu commencé tabax ay kaso de. mais est-ce que kon jàppoo ne euh, justice bi bu moomoon boppam réew mi développement réew mi du gën a gaaw su ko defee kenn du détourné ndax da am xam ne soo détourné président bi munu laa làq. boobaa li ñu ragal mooy extrapolation bi président am mu dem si juge yi parce que ñoom nag ñu ne ko sommet kenn nekkul seen <laughs> mais loolu baax na ci réew. danger la aussi. ah danger comment. bu nekkee bu ko bu nekkee. contrôle bu nit ñi jubee bu nit wul aussi yow bi nekk si kanam. on sait jamais li nga war a la de. Mhm. te bu amee pouvoir on sait jamais ce qui va se passer. Mhm. te ne loo contrôlé rek. Mhm. yooyu tam mais ku lay contrôlé dafa am foofu far aussi. boo tax ma ne la il faut que ñu dem si originalité des rapports. si pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire ku nekk contrôlé moromam collaborer. mais ñi ñi ñee tànn ñi nekk ay nit ñi nga xamante ne xam ni tànn nga ma pour ma taxawu la waaye askan wi moom ñor loolu c'est des personnes sincèrement mais mais magistrat yi nañu sukkandiku ay loi ci ay texte euh, magistrat yi du kenn moo lay sujet am nañu ay avocat magistrature bi war nañu man demal seen bopp ñoom ñoo fi nekk ñooy représenté loi bi de ñoom ñooy bind loi yi ñoom wax dëgg yàlla moom pour li ñoom ñooy yoon donc ñoom bu leen may indépendance kay si yoon yoon rek moo war a am ah waaw si yoon. Ah. ñoom bu ñu jalgatiwul. dañoo war a am indépendance. ñun non nañu bañ nañu génne ci euh, comme ñoom peut-être bu ji bu dee kenn yilifu leen. Ah. mën nañoo jalgati dañuy wax maanaam mbir mi ni mu war a demee. man man loolu xëy na li ma sama gënt la aussi comme li ma amee président assemblée nationale man benn président nga xamante ne noonu pour justice la ministre de la justice ñu génne ko ci biir gouvernement bi. ñu bàyyi justice à part comme assemblée li mu nekk à part nii ñu bàyyi justice à part noonu. président nekk à part am foofu boobu dina nekk. Mm, d'accord jërëjëf euh, monsieur Dieydi euh, Cissé mais élection yi presque suba la. Euh, ban message ngay lancé pour sénégalais yi surtout si stabilité wàllum jàmm. man daal li ma comprendre ba léegi bon xëy na dafa am ñi nga xamante ni yàlla daf leen noppal moom ñi nga xamante ni yàlla dafa leen sonnal am ñi nga xam ne yàlla ubbi na seen bët am nga xam ne yàlla daf leen gëlëmal loolu yàlla moo ko leen noonu mais wax dëgg yàlla ngay sonnal sa bopp ci nit bi nga xamante ne. ba t-shirt la jox ak 5000 francs nga votel ko xam nga sax looy voté te nga dem sa aqulaay taala ak sa conscience tranquille ba dugg ci urne bi par rapport ak li nga déglu par rapport ak li sa xel may nga sa carte nga voté nga bañ a influencé bi ku nekk voté mu xamante ne loolu may représenté Sénégalais yi waaw mu mun nga ànd moom te farook moom parce que y a mais ba ci urne bi bañ ngàcce bi comme ni nga ko waxee yàlla rek a xam loolu mooy tax ñu am assemblée bu baax ah. waa dama dégg euh, Alioune Tine wax ne nañu respecté lépp luy tukkee ci urne yi résultat yi. oui c'est pour bañ a indi histoire rek. parce que des fois le résultat bu génne ci urne bi ak Sénégal tey niveau bu ñuy nekk wax nañ lu ne fichier bi baaxul ak vote bi yooyu Sénégal dépassé nañu stade boobu résultat bu génne war nañu xam résultat boobu la. fii kenn mais mais monsieur Diédié Cissé euh, def nga sànq benn analyse bu am solo léegi Macky sonk ñaar ñi politik rek la wala euh, seen diggante mbañan mbañeel daf ci am. xam nga man fu may euh, li may euh, fu may jëlee pour yóbbu sama kër dundal samay njaboot si li may wax rek arrangé wu la nga ma fa ah waaw yow wax ma la noonu sax waaye dootuma la sax ragal dee sax jaral na ma ko. Ah, foofu la Sonko toll. mais foofu fa la war a toll. nit nga xamante ne yow tu di dis li nga xalaat nga wax ñu ñëw ñu licence euh, dàq la. mais tu n'as plus rien à perdre te stratégie mag yëpp xam nañu nit même booy xeex ak moom mais ko tuuti chance sax mais nga fàtt lépp saa bu si si mur bi sa kaw rek la jëm te fol fol ñu toll ñoom ñaar c'est c'est c'est ça. bu ko bu ko xëy na bu ko bàyyi si biir administration bi bon yooyu yëpp mbirum yàlla la ak ay paramètres yu bëri mais ñoom ñaar. Euh, seen i problème wala seen i arrangement wala seen i solution ñoom ça ne nous intéresse pas tey lu ñuy intéressé mooy les élections législatives. mais mais mais affaire troisième mandat bi yow lan moo ci saxlaat ñiy wax ne président bu ko jéemee <laughs> problème man na am. wallaay Abdou Khare yow wax lu lay waaye daal naa ci tontu ba mu bëgg a cabaxal tuuti rek <laughs> ci emploi des jeunes bi wala après. waaw après waaw après question bi. gis nga mbirum troisième mandat bi euh, avant même troisième mandat bi boo xoolee euh, régime bi lu mu doxee xam nga amaguñu premier ministre xam nga jënd nañu Sénat. assemblée nationale moo fi ne d' accord léegi ñi bind constitution bi ñu ko vraiment toog xalaat ko mais c' est des professeurs d' université des constitutionnalistes xam nga français dafa yomb bi nga ko bëggoon leeral mu leer mu bañ a ba mu bañ a am équivoque na mu bañ a am jeexi jaaxa français bu leer nañ lañ koy bindee xamante ne kenn du ci yokk point kenn du ci yokk virgule ñëpp xam nañu lan la euh, président dafa amoon mandat sept ans mu ne bu su ma faloo dama koy def cinq ans mu dem conseil constitutionnel foofu la commencé mu ne damay réduire sama mandat bi sept ans bi def ko cinq ans ndax loolu laa waxoon ak population sénégalaise bi looy dem conseil constitutionnel cinq ans jot na doo déposé sa démission mu ne duma ko def conseil constitutionnel mu ne ko yow munoo wàññi sa mandat sept ans bi parce que sa mandat mandat bi du mënul nekk cinq ans mandat mandat sept ans la. xaaral rek mu ñëw ba <laughs> ko ba jàll ci boobu. donc il faut nga comprendre analyse boobu quoi mhm. mandat sept la boobu jàll ñu ñëw mu ne si campagne bi am naa benn mandat sama mandat bi loolu Sénégal c'est dans partout tout le monde le sait mandat cinq ans la ok mu def mandat cinq ans constitution bi dafa président bi cinq la instant bi su may wax damay wax ñu far moom li ñu koy interprété mandat président bi mandat cinq ans la après mu ñëw ne kenn mënu def ñaari mandat yi teglantoo ñu farak moom ne comme premier mandat mandat sept ans la mandat boobu bokku ci constitution dafa ne mandat président mandat bu cinq ans la donc premier mandat moo nekk nii deuxième mandat mu ñëw loolu ñuy farak moom loolu ñuy wax ñu faral ak moom ne quoi qu'il en soit sept ans cinq ans o mandat mandat la doy ne ñaari mandat yi mënul tegalante ñu faral ak moom loolu la ñuy wax léegi moom mi xamante ne moom mooy président jël décision am wax dama bëgg a wax naa ci wax dama ci wax wax naa li ma ci war a wax. ni xaar 2024 mais yow est-ce que liñ bind leer na yow france bi ñu bind est leer na yow. wala français bi leer na c'est dépassé interprétation bi ku farak ku farul ak moom mooy li ma la wax. ku farak moom bu ko interprété am fu ma ko téye mën nga ko jox dëgg. yow tey boo ko doon interprété yow euh, war na koo def wala waru koo def. waaw wala de <laughs> wax dëgg yàlla bàyyi ma rek ak sama interprétation. d'accord euh, jërëjëf euh, monsieur Dieydi Cissé léegi Sénégal lu jëm ci wàllum emploi des jeunes. yàgg nañ ci am problème lan nga jàpp ne mooy problème bi ak lan nga jàpp ne mooy solution bi. loolu waxtaan waxatu <laughs> jot nañ ci def waxtaan boobu mais je suis je suis je suis rassuré euh, te kontaan ma ci li ma rassuré wu. parce que analyse bi ma ci defoon loolu moo am échec la euh, la preuve que ce qui s'est euh, ki nekk DER changé nañ ko ça ne va pas du tout te ba léegi mbirum emploi de jeune bi saafarawul. ça c'est la c'est la deuxième chose. li ma doon wax ci mbirum territorialisation bi. tamit gis nañ ni ba léegi doxul parce que population bi xamagul rôle pôle emploi bi population bi comprendre gul programme xëy ndaw ñi c'est devenu li nga xamante dafa technique diggante ay préfet ay ay maire ay euh, institutions yi fay nekk da ngay romb espace Sénégal service bi sax doo xam ne fii pôle emploi la déjà espace Sénégal service bi rek tur bi rek da nga ko waroon changer def ko pôle emploi entrepreneuriat ku romb gis ne fii pôle emploi la mais dañu ci bind espace service j'ai fait un dem naa noor dem naa sud foo dem am na espace Sénégal service effectivement am na c'est vraiment même dans le Bignona y en a partout ah donc le sud partout le nord Dakar y mais nit ñi xamuñu la mooy njëriñ bi parce que ils ne se seront pas appropriés te loolu mooy échec bi parce que mujj bi lan la lan la mujjee nekk diggante affaire jàngkat yi quoi kii préfet la kii sous-préfet maire xam député ñoom ñooy xam lu xew xam nga jël quelque nit dugal leen génne leen population bi nga xam ne chaque jour day romb si bunt bi xamul sax lii lan la dañ ko romb noonu c'est pas le problème donc ça c'est le premier échec deuxième échec bi mooy programme bi nga xamante ne amul coordination déjà ñi ministre yëpp ñu ngi sur le terrain programme xëy ndaw ñi tey si danger la DER génn mën na ko may financé naa ñii ANPEJ génn mën na ko dinaa dinaa xëy ndaw ñi façon xëy bi UCG génn mu ne dinaa utal ni liggéey non dafa war a am benn programme bi ni wax voilà mu wax ci turu programme bi pour programme mu ne dans le cadre xëy ndaw ñii UCG dina temps mais UCG bu beroo di liggéey liggéey lu muy liggéey DER liggéey lu muy liggéey ANPEJ liggéey lu muy liggéey ñëpp ñu am même objectif bi mais objectif boobu nag moo leen di sànq parce que ku nekk après da ngay bëgg a xëcc sa boor nga gën a am doole loolu moo indi cloisonnement te coordination boobu amul moo tax loolu il faut ñu def il faut il faut ñu mettre ko en ordre bu amul ordre rek du sotti. mais mais li nga wax nii kenn mën naa jëflanteeg DER kenn jëflanteeg même personne. mais loolu mooy pôle emploi bi mais mën li ma la wax pôle emploi bi tey ak programme bi dafa nekk échec parce que population bi même bu nekkee fii c'est pas fait pour les ñi li ñi liggéey déjà c'est pour ñu amul xëy la. waaw mais xëy mi ngay wax nii. est-ce que c'est l'état central moom moo ko war a régler war a dafa war a dooreel. secteur privé bi pour ñoom ñu régler xëyu ndaw ñi. xam nga problème emploi bi sax boo xoolee compétence transférée emploi nekku ci xam nga am état day transférer compétence yu gox yi mais emploi bokku ci donc état moo war a gérer emploi bi mais état kese mënuñu gérer emploi bi moo waral mu koy territorialiser mu koy yóbbu bu ci gox yi si ni mu am mais comme ni nga ko waxee sax le secteur privé doit être aussi promu pour permettre que création emploi entrepreneuriat boobu ñuy wax tout ça ça rentre dans ce sens quoi mais vraiment il y il y a beaucoup à faire quoi. vraiment il y beaucoup à mais mm, est-ce ndaw ñi am nañu formation maanaam ñëwal wutal ma liggéey mais il faut nga am benn xam-xam ci loo xam moo xam menuisier nga moo xam plomberie nga moo xam nangam. loolu ci la bokk loolu si cause u chômage bi la bokk c'est une des causes du chômage comme ni nga ko waxee quoi manque de manque de qualification bi mais léegi ñoom formation formation ba kañ donc loolu c'est c'est c'est beaucoup plus profond que ça mais en tout cas li fi amagum. déjà ni si ñu si que les bénéficiaires gis ci seen bopp déjà c'est ça na ko waxuñu ko li ñuy saafaral la jooni mais déjà li ndaw li fi ne nañ ko def de manière rationnelle ñëpp war ci war ci jot moom am communication autour déjà ça du am frustration mais li ci bëri frustration moo koy indi. waaw ah, moo koy indi da ngay bokk fenn kii kenn xam ne fu mu jógee parce que xam na diw te diw xam ne diw moom mu bénéficier wu te yow non c'est genre injustice la ko d' accord léegi ba tey ci wàllum décentralisation ñu wax ci loolu dañu gis ne dafa mel ni yenn villes yi rek grande ville yi rek ñooy Sénégal maanaam dafa mel ni équité amul ci santé éducation dundin weeg nekkin wi surtout ñu nekk ci monde rural bi. loolu c' est vrai loolu nag genre euh, comme ni nga ko waxatee iniquité la parce que les grandes villes yi nga xamante ne am nañu ay moyens ñoom ñu mën a copter yenn financement yi ñoom ñu mën a am accès si yenn programme état bi. mais dafa am déséquilibre mais bul fàtte ni loolu c' est par rapport a au découpage administratif ñoo créé ay commune créé ay départements donc département bi nga gis département bu riche ñu gis bu fa pauvre gis commune bu ëpp doole département sax loolu ça arrive mais loolu lii am la ba pare léegi quelle est la solution mooy li ñuy wax intercommunalité intercommunalité bi mooy yow commune bu am doole nga mun nga collaborer ak beneen commune nga xamante ne amul doole ngeen di loolu genre boobu la ñuy favoriser gul intercommunalité jàppalante bi solidarité bi bon c'est vrai dégg naa am na benn fonds de solidarité tant mieux même fonds boobu sax kenn xamagul <laughs> comment comme impact bi ñëwagul quoi peut-être que lu bees la mais intercommunalité bi mën na nag solution pour dindi tuuti déséquilibre bi nga xamante dafa am si commune yi nga xamante ne extrêmement riche ak commune yi nga xamante ne extrêmement pauvre mais là encore il faut que commune yooyu déjà ñu ne ñoo bokk parti wala ñoo bokk gis-gis yow gi jàpp nga ni commune euh, Dakar bi <laughs> fii euh, monsieur le maire Barthélémy dina collaborer rek benn commune bi nekk euh, Fouta nga xamante ne. APR la parce que amul dina dina acca. daa yow kay continuer loolu rek y' a problème ah y' a moo tax ma ne la sànq Sénégal dafa war a nekk au dessus de ça c' que politique dafa am mais du lépp la ñu war a politiser. ok du lépp la ñu war a politiser. dafa am li nga xamante ne c' est c' la nation. c'est-à-dire il faut nga am grandeur. nga am esprit de dépassement pour mën a comprendre li may wax. yow da nga nekk maire am bu am doole gis commune nga xamante bokkoo leen dara mais ay sénégalais ñoo fa nekk comme yow te mën nga leen jàppale. woo ko nga dew kaay ñu def intercommunalité man mun naa jàppale ci lii bien vrai que du mu ci am dara mais au moins yow boo xasee ba am tuuti doole da arranger population boobu et cetera et cetera esprit boobu moom ñu dese quoi. d'accord jërëjëf Dieydi euh, Cissé waxtaan wi euh, neex na waaye dafa xaw a ñu lay sant di la gërëm. waaw Cheikh Abdou Khadre man kay yow laay sant di la gërëm euh, yal na yàlla may jàmm. jërëjëf euh, monsieur Dieye di Cissé euh, moom nag euh, xelam màcc jëm ci wàllum yoon muy juriste xelam màcc na tamit jëm ci wàllum décentralisation ak lépp loo xam ne jëm na ci xalaat ngir ndaw ñu mën a am liggéey moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Dial moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.